ca Kees Ndagane Albin Bambara Kees war na ko ndombo waaw waaw koo di Kees Albin neexul daal ci boobu noonu door na ko suuf lu arbitre wax suuf ba nee na jeex na de waaw Kees Ndagane daan na Kees Ndagane oh. daan na Albin Bambara waaw waaw donc fi seen Ousseynou wala Assane la bu ñu jëmul waaw Cheikh yàlla de ndeysaan donc Ousseynou la wala Assane Assane laay ndong en tout cas Cheikh yàlla daal waaw am na koy dugg si foofu de ala dugg saa Cheikh ma war na ko ndombo jeex na waaw waaw na waaw waaw la waxoon ma Assane bu njëmu daan na Ablaye Ndong Fissel waaw waaw loolu ci poids léger ya la Camera TV no give me that give